li nga gis néew na lii néew te néew jigéen la dama ni président Ousmane Sonko permettez-moi juste quelques quelques minutes pour vous expliquer pourquoi ce corps sans vie mooy président Ousmane Sonko dama may ma expliquer lu tax jigéen ñi di téye suñu biir hôpital Macky Sall président bi nga xamante ne du wax dëgg parce que en 2019 Macky Sall ay ko non dama ko en 2019 Macky Sall dafa ñëw fii woo suñuy yaay suñuy pap suñuy maam ñoom ñoom ñu mu xam suñu naqar mu ne la je vais vous construire un de niveau 2 boobu tey defu ko hôpital bi nga ne amul sax machine échographie jigéen ñi bu ñuy wasin dañuy tee des évacuations entre Dakar Tamba tey ku votel Macky Sall yaa taay tey suñuy ñoo ngi te imaginez-vous un hôpital comme Pénigara actuellement y a même pas de chirurgien loolu dafa ruslu jigéen ñaa ngi tee loolu moo waral se message loolu moo waral néew bi ngeen gis ma teral ko fii dama koy won président Ousmane Sonko et aussi qui conseille le président Ousmane Sonko une chose yàlla bu ko defee président Mamadou Wouri Bella Diallo c'est un délinquant foncier il a été épinglé par l'OFNAC te ñoo bëgg suuf si def yoon parce que alalu Vélingara yëpp la lekk loolu moo waral seen message donc la jeunesse doit se réveiller Vélingara foo dem ñu saaga ñu on doit se réveiller ñun ñëpp ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda waaye leen topp policiers yi fulla ñàkk fayda yi te